laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah abonné leen ci seen YouTube Darou Fall TV abonné TV te jii di talaata yamook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin 2024 yamook fukki fan ak juróom ci weeru zilhijja 1445 ci gàddaay gi Serigne Assane Fall moom Serigne Modou Moussa Fall ñu gën koo xam Serigne Assane Ndiarème moo doon woote am ruuj ci toolam yi nekk ci Touba Madina Fall tool yi mi ngi toll ci ñeenti téeméeri mètre ci yaatuwaay guddee benn kilomètre mbooloo mu takk lool wuyu si woon ko ci liggéey boobu.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 loo ko jox da la naan tegal ci suuf néewut kon nga jox ko hmm. addi ati mooy lan mu ne nan nan dimbalante nan jàppalante hmm. loolu sëñ Cheikh Mbacke ñëw organise ko indi daayira hmm. naan dee leen teg tey teew Barcelone dama dem ñu daayira ba noppee kii mooy suma seede ko fekk Aliou Fall luñ noppee ma ne ku ne na def nii téye bu ci teg loxo kam demar bi ñëpp defe noonu ma ne ku ne na wëlbati wax ma ki nga teg loxo nu mu tudd <laughs> ñuy nakk nakkal leen kon daje bi lu muy jëriñ dimanche ju jot ngeen daje fii jàngi xasida wàcceb kaamir <coughs> sikkar tàngal kafe te kenn xamu ci moroomam kon lan la jëriñ <coughs> fukk yi rek mu ni fukk yi xamante amu ci <coughs> man leen kon lu muy ah yéen ak ñii Coladera yem rek dañuy daje Coladera rek Coladera. Hmm. la aw xabaar naan wa jaxalnakum xabaa'ila wa shu'uuba waaye li ta'aarafu ah, waaw bu dul yàlla mënoon nag ku war a judd kenn du jur kenn ku ne dana la cëpp rek ah. waaye danañ li ta'aarafu ngeen mën a dimbalante jàpp moo tax ma ngeen ay giir ak i famille ah. waaye fi ne mënoon nañoo sàcc sa morom te mënoo koo dimbale lu mu lay jëriñ ku seen sa morom ne ci tumuranke nga bako ca di ko ree lan la lay jëriñ waaye noonu bi sëñ bi sëñ morom de noonu mu firee ah. ah, man de loolu laa jàpp ne noonu la koy wax loolu laa jàpp ne daal mooy xam-xam bi dëgg dootul am bañante bi dootul am ndax ku ne da nga amul sutur leen di coow bi la kii day am man amuma ma xaj ma ci ñaane ko lam bu ma ko defee ni sama bopp itam lu am ma yéene ko. toujours dama yàqul sëñ mu ngi kon ñu ñu ñu jàppaat loolu rek. te te fas ko yéenee doxe ndax euh, li ci des moom bëreetut. waaw euh, ba li bi bëgg ñu doon ci dara. ñu fi waaw lu mu mën di doon nag rek seetal bëggum sëñ bi yaa xam lu mu doon nga jéem ci sëñ bi ne ne nañ soppante mhm. imam dafa wax dama lire benn téeréem ñu topp ko ci France mhm. le ayuhal walid mhm. lettre à un dafa am taalibe ba fanweeri at dafa ànd ak moom mu xëy woo ko mu ñëw mu ne ko fanweeri at yi ñu ànd lan nga ci jëfub eh, eh, takk mu na ko gis naa ngay wax ci alxuraan karim bi ne sama nee na sàkkal naa leen noonu boo xam ne bii yéen nit ak jinne bu ngeen booloo woon di ko xeex du ngeen ko mënal dara su ma leen jàppale mu ne waaw seytaan de loolu la ci sëñ borom wax mu ne ko lool loo ci defee takk mu ne ko man bi ma amee noonu bu tol noonu fasutuma yéene wut beneen noonu mu ne ko ak lan mu ne ko gis naa ne nit itam bu amee xarit bu woppee dana fa ne di ko ragal bu faatoo bu faatoo. mu mu mu rob bu bu noppee dem. waaye ñu ne jëfam moo fay des. mu ne kon xaritootuma kenn lu may jëf ju rafet. waaw fasatumaay am benn xarit bu dul jëf ju rafet. waaw kon ñaar yooyu dong eh, juróom-ñetti yëf la waaye ñaar yi laa leen di génne.

Allah